Seydina Ousmane ko mu sell mi Afrique yëpp ko yëpp ko fonk mais musuñu gis nit koo xam ne fay génn di jox benn discours boo xam ne un discours historique man ba muy wax mortal combat jour boobu dama doon yuuxu dama ne ñoo c'est pas possible lu mu leen jaral nañu ko jaral mortal combat billaahi mu def ko yàlla jàppale ko ci yàlla jàppale ko ci cest yàlla bu la bëggee Sénégal yàlla bu la bëggee da ngay xam ne yàlla dalaa ko nga eggali nga jël sa victoire Sénégal yalla daf ñoo jox ndam le 8 mars ndam bi mënon na mënon na total le 8 mars ndam bi mënon na total Sonko jëlee fi Macky Sall mais même bu ko fi jëlewul sax ba légui yalla daf ñu joxat benen signe mooy ci élection locale yi yalla bu lay tàccu nga ne do fecc ah do mës a fecc yalla du joxe ñaari chance de en général benn chance la lay jox le 8 mars li taxone ma mer sani sama téléphone saaga parce que lii ngeen di wax nii yëpp gisoon naa ko ci Macky Sall ñu naan day rey Sonko lii yëpp gisoon naa ko bi ñu ko fi jëlee woon est-ce que dinañ fi toog tey di wax ne day sàcc élection yi mu nekk France inter France 24 di wax naan terroriste yaa ngi ñëw bëgg taar réew mi naan affaire Adji Sarr dañ koy traité li fi amoon doo fi amaat buñ ko fi jëlee woon boo waree xeex da xeex fan la ñu yàlla tàccuwaatee lu dal ne Khalifa Sall. lu del ne Serigne Moustapha Sy lu dol ne Youm lu dol ne Malick Gakou lu dol ne Ahmed Aydara lu dol ne Aïda Mbodj Moustapha Diop ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nangu ñëw topp ci ginnaaw président Sonko loolu ku mu doy lan moo lay doy yàlla bu ànd ak yow day ànd yow ndax li Sonko réussir nii li Sonko réussir nii yombul Serigne Moustapha Sy bu demee ba ànd ak yow te ñëpp xam ne Serigne Moustapha si dafa am mbooloo dafa am mbooloo mais waxuma sax mbooloo mais li muy représenté parce que Serigne Moustapha Sy en général Serigne yi man li taxoon sax may tiit ci ay mbiram damay mën nañu toog rek de ah man de yàlla nee na ma lii bul ànd ak Sonko mais xoolal fi mu jàpp dafa jàpp dafa jàpp gën dëggër ba pare sëñ Moustapha Sy dafa dem ba fonk Sonko ndax màggal bi gàmmu gi ba mu ko ba mu leen recevoir ba mu demul recevoir la ñu bari seen xel teeyoon na mii sax sama xel teeyoon waaye gis nga ba ñuy def seen meeting bi bu wax di tudd Sonko di tudd Sonko di ree naan sonkoo dafa ne woon sax du def du def du def discours waaye gis nga ko buy wax sax du ko tey ba pare di ree estime bi mu am accolade ko fóon ko te Sonko kenn waxu yaay yaay jité dé Sonko jiitewul dé boy xol Déthié Fall moy président xaw ma lan mais c'est le leader naturel mom la ñuy en général moy mujj wax buy ñew ñu fàtt ñep xalé yi ànd ak moom bu yëf yi tasee xalé yi mom la ñuy est ce que dafa tax Khalifa Sall iñaan non non est ce que dafa tax ah Aïda Mbodj iñaan non non non est-ce que dafa tax sëñ Moustapha Sy iñaan non ñii ay pat dañu wane li ñu mënti woon def ci àdduna ñun dañ leen koy war a baal te gisuma sax li ñu def billahi wallahi taala ñoom sëriñ Moustapha ñoom ay dëmbooj surtout Khalifa Sall